asalaamaaleykum mbokki téléspectateur bu Tacko TV tey nag ñu ngi fii ci marché bu bees ku ni marché bu bees nag di ngeen di géejawaay tey nag dañoo ñëw doxantu fii waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy commerçant yi nga ne ñu ngi liggéeyee fii ci marché bu bees waxtaan ak ñoom seen nekkin ci marché bi ak yan tolof tolof la ñuy jànkonteel. waaw marché bi moom ay jafe-jafe rek marché bi moom ay jafe-jafe foo ko natt rek na ko marché bi moom daana daanaka ñu fi dundee moom bëri na lool waaw marché bi salte na bi amul dëkk bi dëgër na. marché bi daal moom ni ñu dundee métti na lool tey gisuñu si laa suñu bopp ci marché bu bees daal gisuñu suñu bopp léeg-léeg police yi fekk ñu fi déplacé ñu ne jóg leen fii te dëgg yàlla dañuy daan suñu dool te ay citoyen leen dañuy woote comme ñëpp dëkk si réew mi kon nag war nañu mën a bàyyi ñu liggéey suñu liggéey dans sàcc ñu fenuñ dañuy daan suñu doolee waaw ndax noonu yi teg suñu place yi wax dëgg yàlla jaay mi demee demeetut noonu waaye lépp la sant yàlla la yàgg nañu ci marché bi di yëngu ñoo ngi ci jaay yére xale yi balee fookaay yi lañ fi nekkal daal waaye marché bi daal moom mooy loolu yàqu na yàqu na rek moom dëkk bi daal métti na waaye ñu ngi sant yàlla bu baax waaw marché bu marché bees nag moom nekkee bi bari coono bari coono vraiment donc yàgg nañ fi presque léegi ñu def fi plus de ay 15 ans wala 16 ans ci marché bi mais boo de xool li ñu doon dund cinq ans euh, après wala quinze ans ci ginnaaw donc moom lañu dundaat ba léegi rek donc autorité yi nga xam ne ñoo ñoo lënk marché bi muy waa Jide Caare kaw ak waa Wakhinane Nimsaat boo dee xool ñoom bàyyiwuñu xel sax marché bi ay jafe-jafe am parce que koo ci gis rek jëm ay maman nga gis mooy maa ngi xam ne peut ay ay local mi ngi waaj ñëw donc ñu ñëw fii gëmloo ñu yoo xam ne si donc dañuy defar marché bi fii dañuy génn waa marché bi defaraat ko moderniser ko wax wax wax ba nga gëm leen mais après élection yi doo gisaat kenn. Ah, yàlla doy na waar nag. parce que yaa di dèjà man bu ma commencé fii liggéey ba léegi duñu fiy gis avantage lu dellu ginnaaw rek la gis te ñun Casamance lañ jóge ñëw fii pour daan doole boo gisee réew mi bu bu mu demee eh, lu mu demee léegi affaire bi dafa dañu dañoo touché quoi léegi léeg da ngay gis waa police yi ñëw fii duñu bundu xatal daal say bagage ñu ne la dagg nañ la juuti wala yooyu noonu loolu wax dëgg yàlla bëgg nañ kuñ ci jàppale waaw ñun ay Casaase lañu liggéey lañu gëm moo tax ah bu ñu amoon ku ñu taxawati loolu moom wax dëgg yàlla dinañu arrangé. ndax ñi bañ a daw daw responsable yëpp moom la ñu àndal moom maire bi daa am yaa ngi dégg ñun nag Ahmed Aïdara mooy sunum Ahmed moog Tahirou Konaté moom lañ am moom lañ xeexal ba nu gagné maire bi. nekkoon nag na ñu ñëw dimbali si suñu marché bi ñun marché bi rek la ñuy am ndox ci la ñuy suturoo suñu doom yi di jàng amuñu dara ñun suñu ndey ñun seen ndey ñoo nekk si école bi di si marché bi di jaay di leen fayal école yi kon boog nañu ñëw dimbali ñu jàppale ñu si bi bu tawee marché bi yëpp ay sax lay doon Ahmed Dar moom comme que jàppale nañ ko ba mu jël victoire bi liñ koy ñaan Dar mooy na ñoo defaral ñu marché bi. parce que marché bi salte na marché bi ñoo ngi nii sunu mbaar mi ñu ko teg ba léegi yeegut ci jafe-jafe la nekk ci risque la nekk. fii ñu toog nii amul benn sécurité te jigéen ñi fi nekk dañoo sonn daw nañu guddi daw bëccëg amuñu lu dul marché bi sunu yaakaar yëpp ci marché bi lañ ko teg te marché bi mënuñoo fexe la eggalee defar bi marché boo ko xoolee sax nga xam ne ñun am na na ay jafe-jafe parce que ñun ay jigéen lañu ay néew di doole lañu ñu war ñu taxawu dimbali ñu ci marché bi dimbali ñu ci set gi dimbali ñu ci sunu sunu sunu wér gi yaram te loolu yëpp amuñu ko. mais dafa jot nag. ku mel ni le président de la république mu nga xamante ni mooy président de tous les sénégalais euh, di bàyyi xel njaboot gi nga xamante ni ñoo ne ci ginnaaw bu ñu xëyee ñëw seen place toog maanaam di di wut lu ñu am yóbbu seen kër gi ay jafe-jafe la ñu am ay métti métti la ñu am parce que dafa mel ni sax aussi boo xoolee bokkuñu ci population bi boo xoolee particulièrement ñi nga xamante ni ñooy les grands commerçants am ay places yu baax a baax a baax Euh, yàlla na leen ko yàlla yokkal ñu ngi si jàmm mais sunu mbokk yi nga xamante ni maanaam ñu ndaw lañ yor seen i taabal di liggéey bu neexee mairie bi ñu ñu bind ni dañ leen fiy jëlee tey à chaque fois dañuy am problème yu mel noonu te pourtant ay citoyens sénégalais la ñu. Tacko TV ñi ngi liggéey ci gox bi lu am solo ñi ngi déplacé wu di xool nit ñi di leen fekk fi ñu nekk ñuy wax seen i naqar kon Tacko TV ca kanam. aca mbokk téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon ci seen micro fii si marché bees yaakaar naa ne ñoo ko gisandoo euh, dem nañu waxtaan ak commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi euh, ñun ñëpp gisandoo nañ seen xalaat wax nañ tamit jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy dund ci marché bi euh, dañ leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah fii si Tacko TV